kaso ba dina woon Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko daal dinañuy tàbbi ca boppu réew mi ki ci njëkk nekk njiitu réew ki ci des nekk ilimaanu jawriñ yi muy ndamal projet PASTEF bi nga xam ne ñi ko woon lu ne daj nañ ko ci seen bébét daal di antu Bassirou Diomaye fay ak Ousmane Sonko ca ba ñuy tàbb seen gouvernement donte sax nag bàyyi nañu xel ci man-man yi waaye itam ci tàbb gi ñu tàbb ñenn ñi mel nañu ne kuy delloo naar bi xoromam ndax ku ci mel ni Pape Birame Souleye Diop mi nga xam ne mooy responsable lu Pastef bu yoon njëkk teg loxo tey jii moom la ñu dénk ministère de l'énergie du pétrole et des mun Maymouna Dièye mi nga xam ne askanu commune bu Patte ñoo ko taboon ngir mu doon seen maire yoon tegoon na ko loxo ci diir yu takku laata tey jii ñu dénk ko ministère de la femme et des solidarités jëwriñ wi ñu dénk wàllu infrastructure des transports terrestres et aériens muy El Malick Ndiaye yàggul dara yore bracelet électronique am Khady di fonctionnaire bu doon liggéey fii ci Ndakaaru xëy na bés ñu daal di koy muté yóbbu ko Kaolack ginnaaw jegeem ci parti bi di Pastef bi ñu doon rumandaat tey ji nag moom moo yor wàllu ndaw ñi naka noonu tàggat yaram ak culture jeune inspecteur du trésor bi nga xam ne moom moo jiite Pastef foofe ca Goudomp di Olivier Boucal moom itam amoon na ay jafe-jafe ak yoon ndax bokk gi mu bokk ci parti bi di Pastef tey ji ñu dénk ko ministère de la fonction publique et de la réforme du service public loolee yëpp di ay exemple yoo xam ne dara mayu leen ko lu dul seen gëm-gëm seen courage waaye itam naka noonu seen dignité saa yu ñu jànkoonteele ki jafe-jafe mu mel ni rekk li ñu leen dénk tey ci ay ndombal tànk dañu ko faa xaar